man lii laa xam xam nga man damaa sama yow dama xaw a solution en fait. da ngaa seetlu li ngeen ko defee damaa bëgg a jàpp man man dëkk bi la ko man dama gaaw a ci ay yii parce que Sénégal damaa bëgg def ko lu bon dugg ma yàmba jaay ma doon xaaj ma nekk ma électronique yooyu nekk ma ci man damaa su man awa ay dox laay wax Sénégal yi da ngeen gëm naa ne Sénégal yi damaa bëgg nag. xaw ma le bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon mu def ma manoon wala beere wala si beere wala adam jees wala boole xaw ma le bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon def ma bi sale wala bi di gàll na sees samay xale lañ waa bi gàll na man yi laa xam xam nga man dama lii may def nii moo gën ma génne sama cuuci ci bi moo gën ma liggéey yéen ñi génne seen cuuci ci mbedd yi kaa leen ngeen liggéey ma bu bu ëllëgee doo génne seen seen suy sutu génne ci mbedd bi na nga wóor ma xewee am naa ci lu may jàpp moom damaa am mboose a mere de di wax ko waaye di raxas di ay madaar soo kiri rek ay fab ak oto bi di weex ak di taal dafa jabet loolu mooy di ABCD e, e, e F G H I J K L M N O P Q R S T transport ay manqué leen raxas manqué leen